As well, like Raven is our luxury villa chả mình kìm nữa rất là chả rồi nếu mà tôi nhìn mặt béo khơi tôi cũng xin so với chụp cổ cô cha cao phút mình nhau cũng biết đường đấy biết đi bài bấy ăn thì phát tên là phát foto di situ dicip-cip ke cap-cap kan masa bok wow berdua kan masa bok kamu mosoo bopp waaw ndax bu dee woon seet nit فاكر بعينيه ده اتقلب بعينيه بعينيه احنا ايوه قوة بقى فاهم حاجة اه سيدي سيدي Udah apa teh bro? Uang dari rel rel, rel rel, burung, burung, burung. mi seeti bi sax est-ce que yow la donc nit ndax nit ñi tey mbokkam soo amee nit am nga alal ñun sax lan moo tax nga dugg ci loo xamul wala ngay def loo xamul loo xamante ni nii soo nelawee fàtte ko soo fàttee mu jeex lan moo ko fi jar <laughs> waaw fonk nit laa nit ñi tey mbokkam est-ce que xam ngeen nangoon naa leen nangoon naa leen dama am sax ci yàlla danga ñàkk fayda te xanaa gisoo ma

bi est ce que di ko atam ku la ñëre nga bëgg sama kudd dafa diis te dama mën a tibb te fekk àdduma ci sës bi duma bàyyi ndax bi yaatu na te soos gi tooy na ci biir fa la neex xamal dinaa la añee ba desee loolu yéex a amaale ko mais juste à une seule condition. laquelle. nga doxalal ma léegi. léegi papa Fiska sama xarit. ñu ne maanaam paa bi bukki la yàpp lay war xam naa ko bu baax a nga bëgg ñu dund ko man ak yow nag pour mu neex il faut suñuy poos am dara. त्याची मौके से लग गई आकर Come say you the cash. I don't know. Now I don't care. Aku mau kok. Ayo. Sadar ya, terasa dong. Très bien. Te lo ciao. Così preso un ora degli altri. lift. On dit souvent que tout vient de la mer et y retourne. Sometimes life bi dafa bari ay secret comme géej moo tax su ma bëggee judduwaat fii laay ñëw pour fatte sama souvenir. Tu sais, tu as raison. C'est le lieu de la naissance et même celui de la mort et de la renaissance, même si sa traversée est souvent risquée. Ouais, risqué pour ceux qui empruntent la voie illégale. et à leurs à leurs âmes, les fans. Amen. man li ma jaaxal mooy géej ak ni ñu yaatoo nan la fi nit naan de da ci traversé da ci ñàkk bakkanam pour tukki doy waar. peut-être c'est choix euh, tolloon naa foo xam ni j'avais pas le choix j'étais comme so nit di nga toll foo xam ne boo jaayul sa bakkan rek jaay bakkanu jàmbur. mais j'éprouve beaucoup de peine pour ces gens-là. C'est vrai que la vie ne donne toujours pas le choix. Elle nous impose tout, vraiment tout, même au nom de famille. C'est dommage. En effet. Et si on faisait quelque part D'accord, pourquoi pas <laughs> wax ko ñëpp bëgg naa la bëgg naa la bëgg naa la toujours la même tête yow dama lay laaj rek kenn ngi suukar sa àdduna daal di ci tëmbal glace ak meew jox ñu ñu naan nga naanaale. su bébé tu commences nag gis nga ni maa ngi def effort. effort. en tout cas, là, je vais te dire, tu n'es pas la seule personne à souffrir dans ce monde. Puis, que le fait le faire, moi le EPS. Donc, sois free. Hum. Ah, d'accord, moi le Tu as vu le prof, nous l'a dans le hum. Je n'ai même pas fait la remarque. Ah bon? Dans un monde, je vais me souffrir type de papa. Je ne connais rien de ce génétique. waaye gis nga ma Guèye bés bu duggee si man dina xam ne c'est que nag ak élève sophistiqué laa defal nànk da nga ëppal nag. yow naa ragal moo tax bu ma sa xeetu jikko. papet équipe papet foofu ngay supporté. man dina la jooy dina la bëgg ne doo fa tey tey tey su mu ne nekk sax tëgg ko mhm. voilà ay vingt heures yooyu dama fekk hôtel ba waaw ay jeex na ok à tout à l'heure wuyu def ci code def ok ça sedang di sini dibuka kelola bulu eh, ya kali ini kecil ini di sini kucing keluar dan berdiri menjaga red pas kedengar kucing kini kamu tuh plus di susi tv bayam plus di mini kini ambil fat di kain kain sudah fat di jenayah kuberada man may fàdd bu nan traité bu mu jeex mo xam ne man formé màgg naa merci beaucoup. tu mérites on va vers sax mais autre chose xam nga olof lu xéñ ci kubéer gi mo nga ci boudel ba je sais que du mission sax ci yow pense que c'est bon, hein? Je vais m'en aller sur mon work committee. Donc, je vais m'en aller parce que je dois bouger tout à l'heure. yàq sama tol bi yëpp ndax ni mako ko won buñ moko ko bàyyi loon noonu diñ fa dugg ba koy yàq lépp yàqu na nag alay dekk bi de sop lañu def te boy itam neexu ñoo tee waaye ab laaj hmm. dal nga xel de mareem bu mu demee Dakar ba tey gisuñu ko te dégguñu mareem bo ba mang kay wo mu woo mënu ba jot léegi la si mujj léegi nak lolou lu ci pexe. ah nañ tok bu ëlëk bu ñëw ma dem Dakar. ah dem Dakar da jot na. ah dina xam nga ni Dakar dëkk dox daja la te kenn xamul kenn. inshallah allah dinaa def. ah moo gën dé foog ma dem Dakar. ci katan ba we are, we are, we are.

Silônica. Nem que mais ajudaram eu. عليك وي بكل بكل اتوش تسير ابا داكور يعني زوي ما دخلت ايوه بالنسبه لي انا اللي انا بعمله واقوله يا

peut-être am na si moom. oui non loolu laa ñuy dégg. tey ton frère lu baax rek bëgg. d'accord am nga bëgg. bu fekkee ne yaa ngi ci si dara. mais attends loolu na na ma ko man ak Cheikh c'est du sérieux. mais mënoo gëm loolu. daf ma nar a bàyyi ci kër gi man ma def lan. mais man jigéen laa am naa droit gis ki bëgg. na ma ak Cheikh Cheikh laa bëgg. ne ak ñoom. ma non c'est pas question que la mais dafa faut nga bëgg nit ki nga ci le mu nekk nga xëy un bon jour la mënu fee amee mënoo nekk lan moo tax loolu lan. xam ñu ngi ci dans une société sénégalaise. dañ fi gis benn couple xam mbokk yi dañ croiser les bras comme ça loolu fu mu faut t'adapter à cette situation. le le xam nga lan la a def instant vous allez vous souder. من حملك به وبقلته من بفلفنا على الدنيا اللي بعدني أتعطي سنة خير كمان من لونج بوك لب لب ما كم تعطينا معي ماما من سبو من اسمه هذي شو اسمه اسمه ما كيف صوتي ده أنتك ما لا مبدأ بيزلو أولا خاصة بتوجع మనసులో సిస్టర్ لا لا خلنا نرى الموطن عندي ما فيه lépp lu ba sa frère man su benn par benn ko fay man su lay nga xam ne ak man avec Latoya lépp fay ko.

Eh, na fi ana na fi yàlla bu ma jaaxal ana eh lan nga may wax ni da nga bëgg man nekk fi ah lu ma ci xam na Eh, ubbi naa bunt yëpp gis ma ko nekkul néegam bu eh eh bita lan la am na Eh, dama bëgg may lii eh kay Toggle. Toggle. Toggle. Pak Toggle. Kara mau mas. Kara. Je suis presque arrivée. Parfait. waaw waaw ana na fi na fi fan la war a dem mais fan la na fi dem fan mais mais xam nga mais loolu moom mais nag nan nga mën a def ba fanaanoo ci kër gi vraiment eh xam eh, nga benn fi ñu war a des rek mu def li yow dem papa mais fanaanoo ci kër gi mais yaa booy na fi kan kan mooy xaritam war na am xarit foo xamante ne peut-être parfois foofu lay war a dem amul xarit amul àndandoo na bi xamul fenn du dem fenn maa ngi moom ngay yendu ci kër gi ba guddi sama doom di foo war a nekk yàlla na yàlla ni sama ma fi waaye yàlla ni sama doom ji waaw

tey mu doon tey duma bàyyi ñu ñëw fii mukk waaye lenn rek lay rëcc mooy li ma mujjee sa place bi nga tëdd waaye foogoon naa ci àdduna foo tuuree rongoñ ma fonkol waaye yaa ngi ñu tëdd ma lay xool mun ma si yow dara waaye jàppal ni foo tuuree deret sama xol sot na ko si rongoñ kemarin dem bëgg naa trop La cuisine, c'est